mooy dañoo toll nag waxtu woo xamante ne ak crise yi am ci réew mi problème économique yi am waratuñoo jóg rek lu xew rek ñu bokk dañu war di xool ci tàggat yaram li nga xamante ne bu ñu ci bokkee dina jàngal xale yi dara wala dinañ ci gañe lu bari su fekkee ne nag da nga am ñaar yoo war a participer te benn moom la sa kattan may da nga war a am lecture après consertation lan nga war a xam foofu ngay teg sa loxo loo xamante ne dina sagal réew mi waye di nga mëna atteindre cet euh, objectif. fédération handball nak ak équipe bi liñu xalat mom moy dañuy dem ci compétition africaine té jëlaguñu coupe d'Afrique Nous té dañu wara a pour jël ko kon moy yi ñu am dañ ko wara mobiliser pour accompagner créer les conditions de de participation les conditions de préparation à notre équipe nationale ba bu ñu demee ci tagat yaram bobu wala ci compétition bobu ñu mëna fa jëlee wala ñu mën fa bégal suñu réew loolu moo doon kaddu yi jërëjëf